nit dana àgg ci nite ak xam-xam ak may ba musuwaaram sax xaqiqa lay doon mbaxaneem sax xaqiqa lay doon jaar jaaro bi mu takk sax xaqiqa lay doon socc bi mu seex sax xaqiqa lay doon nit dana ca àgg ci toppatoo boppam ak mayu yàlla ah. sidna usmaan ba jaaru yonent ba rëccee baaraamam dugg ca teen ba mu ni sama jàmm jeex na sama jàmm jeex na jàmm ku yaakaar jeex ñu ni ko lan la mu ni jaaro bi ñépp donn mu nekk fi donn naa ko mu dugg ci biir teen bi ñu ni ko nañu ngacc teen bi ñu ngacc ko gisuñu jaaro ba ca fan yooyu la fitna bu rëy ba am ba ñu rey ko taal këram rey ko kamilu alquran bu mu amee woon di ko défendre boppam ndax ñu rus ko ñu dagg loxom usman ibnu affan waaw pour wax la ni yàlla moom it mi ngi xeetu cynisme boo xam ni mi ngi waaw boo ko xamul négocier ci moom nag dinga nga xëy jéppi ko weddi ko mu lapp la te kenn du laate boo ko xamee nangu ko négocier ci moom nag du xamati fu mu lay jaar waaw waaw loolu cynisme la fexe ba réeral jaaru Ousmane jaar ca yàq lislaam ñépp reyante ba jeex tàkk seetal loolu na mu ko defe woon Suleymaan ibnu Daawud keroog ba jaaroom ba réeree ñu wut wut gisuñu ko ñi ko daan jabaral sax di gis lu kenn dul gis gisuñu ko mu ne kon nag jeex na ñiy sétoo ci man dootuñu noppalu booba ba léegi banu Israël noppalootuñu te jaaro rekk la ay jaaro ba dafa yenu personnalité borom waaw moo tax pas-pas ku la ni am naa ko bala nga ko nangu seetal environnement ba xam seetal ndax colam jaadu na seetal ndax doxinam jaadu na seetal ndax waxinam jaadu na seetal ndax tooginam jaadu na bu ca amul weddil pas-pas ba uh-huh. weddi ko nekku fa benn waaye dafa jóge ca daara ja dem gane ci mbokk daaraam fekk la ñëw ca dëkk ba mu ni ko waaye yow li ma la xame ci càggante ndeke am nga fi pas-pas ci diggante bi ba tabax jàkk mu ni ko waaw ah, jàkk ji de maa ko tabax mu ni ko kon nag ma àgg ci julli fa ñaari rakka waaye man de ci càggante laa la xamoon mu ni ko deñ na moo tax ma tabax jàkk ji mu ni ko kon maa ngi lay jiitu ci kër gi boo àggalee ñaari rakka yi rek nga ñëw waji dem ubi jakk ji rek fekk fa mbam rek mu tëgg gémmiñam ñépp daje fa ko ah, xew mu ne xawma won ni sunu borom wuy jën bopam waaw ndax jakk ju mbam di fanan fi rek la ko gisi balay ndeysan ndeke pas-pas ba nekk fa walay ndeysan bu fa nekkon buñu tabaxé jàkk ja ba nopi mbaam du fa dugg waaw mo wax légui nak إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله خمولوني تبع جاك دون نم tabax jàkka ju am secret mooy ndam yombul de tabax jàkka yomb na lool waaye jàkka ju amul benn sirru mooy yomb jàkka ju am sirru moo jafe waaw